te bu njëkk li di mosquée Massalikul Jinaan dëppook aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre fële ca Ndakaaru Njaay si ndigalu xalifa général des mourides Serigne Mountakha fépp fu murit nekk si Sénégal di ko waajal première julli bi ñuy amee foofu wante ndar kenn demul ñu des doxantu ba marché teen jigéen fekk fa coiffeuse bii di wuyoo Vsec ci ay kàddu nee na ñu ngi koy waajal bu baax a baax. gërëm Serigne Bamba mi nga xam ni moo nit jumaa ji mu nekk jumaa ji nga xam Euh, daanaka jumaa Touba ju mag ji ñu fekkee wuñu inauguration bi euh, deuxième jumaa bi di jumaa Njaareem fekke wuñu inigration bi boobu fekk na juddooguñu ñun nag suñu wërsëg si jumaa ji la nekk ñu fekk ka waaw waaw waajtaay lan la rek ñun am nañu génn kuréel gu tudd ëllul addiya gu nga xam ni dañuy dajale lu ñu am rek dugg ci oto yi daal dem siyaare ji jumaa ji julli fa ajuma waaw bokk ci mbégte mi nga xam ne mbégte murit gépp la mbégte Serigne Touba julli fa àjjuma bu ñu takk ñibbi si ndar fekkee ouverture jumaa loolu yombul si àdduna te dégg naa ñetti juma yoo fekkee ouverture bi sa yaram araamal la safara kon boo ñun bii moom moom moom incha allah yàlla yàlla ko yàlla yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñu fekke ko euh, teewee ko taxawee ko ni ñu ko war a taxawee barke borom Tuuba. sunu papa sëñ bi sekk kenn demul mu des. waaw waajtaay bi fexe ba fekke ko ndax ku ne dégg na li téere yi wax ci jumaa ji ñuy ubbi waaw que daal ñu xam ne daal loolu daal euh, waxuma la Sénégal. waaye jullit bu ko yàlla mën loo rek ñaan ngi yàlla fekke loolu waaw yal nañ ci yàlla may ñu fekke ko te talka am paas am paase boo amaalee sax addiye boo joxe. kii di Baye Fall nag mi ngi koy waaj bu baax baax ànd ak képp kuy taalibe Cheikh Béthio nekk ci Ndar. cër boo xamante ni le 27 ñu ngi koy waaj ñun waa Touba Ndar Daara Soxna Faati Jaxate ànd ak Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée ba tax na ni loolu ñu ngi koy waaj lu lépp lu jëm ci wàllu bernde fas yéene ànd ak Serigne fas yéene ci doxee doxin boo xamante ni kat àdduna sépp danañ xamante ni Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée mi ngi ànd ak jëwriñ mbàkk yu fay waaw topp ci gannaawam jiital ko mu doon suñu jëwriñ tey ñaanaat daal sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi loolu tubéer ubbite bu njëkk lii di mosquée Massalikul Jinaan kii di xalifa général des mourides mu Mountakha Mbacké wàcc na fii ci ndakaaru tey jii ci dimanche bi mbooloo mu bëri bu ko topp di woy jërëjëfe Serigne Touba